mais man xam nga luy problème. waaw man ba ma juddoo ba léegi caat caat caat man daa mel ni yi ñoo yóbbu sama wërsëg bi gëj naa compter. xaalis euh, temps de non mais nag temps yi da ngaa amul de bonjour monsieur. waaw ça va euh, vous bien. vous allez vous parlez français. parquet non fii bi amul parquet di faay. vous parlez vous parlez français français français. kii kii dañu ñaan xaalis. saa yor man saa yor ma CFA de. donc je demandais juste quoi l'école Kennedy sax Kennedy. man crédit moo yor léegi laa ko wootee. l'école Kennedy école école école. ah école. j'ai pas koñ bi daa am kudd koole bi A B C D E F école. école français français. école Kennedy école lycée je Kennedy. Kole bu ñu fase fi ci koñ bi man xaw ma ko. Kole ak fase loolu. je suis en vacances au Sénégal je connais pas le. wakkaan naa nga jógee. c'est tout ça waaye yow nag li ngay wax dafa compliqué. ça daa mel ni wakaam lay laaj. non non sa Fara wakaam euh, wala waxoo je comprends pas ce que vous dites. je viens de Paris. vingt je viens de Paris Paris France. ah France nga voilà exactement France. maintenant je cherche le lycée John Fitzgerald Kennedy école où les gens apprennent à. Succès, succès. Succès, mooy lan. Vous parlez français. C'est pas? Vous parlez français, français. Vous parlez français, vous comprenez français. Comprenez, comprenez. Face. Ouais, bon, face, je suis perdu, je cherche l'école John Fitzgerald Kennedy quoi. Crédit, man yoruma crédit parce que le meilleur message que c'est la mën a envoyé. Kennedy. Ke? Kennedy, école. Ah, école. Merci. Waaw. L'école ça se trouve où? C'est où? Où? où Plus haut, l'école est où L'école John Fitzgerald Kennedy, je suis perdu, j'habite pas à Dakar. L'école Fitzgerald Kennedy, l'école Fitzgerald ah c'est grave. grâce ak grâce loo bëgg da ngaa yor xaalis bëgg ko la agrafeel wala waxoo loolu. mais man je je viens devenir fou quoi mais mon mon gars je suis perdu je comprends pas olof. je viens de Paris France Paris France. waaw France nga jógee. Paris oui. France wala Paris. mais vraiment franchement où je je où se trouve l'école Kennedy où. école bi jaay crédit. non non école bi jaay crédit je parle de crédit frère kii Ousmane lay bu Ngaraaf. ah où lay laaj Ousmane Ousmane bu Ngaraaf. c'est qui Ousmane. c'est qui Ousmane mooy lan. je sais pas non santu Seck de. waaw c'est qui Ousmane dama Ousmane bu dee koñ boo jaar dee koñ. première kër deuxième kër foofu la Ousmane dëkk. Ousmane je comprends pas ce que vous dites. Ousmane c'est c'est quelqu'un nest pas. moi parle de une école école où se trouve l'école Kennedy. où école. moi je viens de Paris. waaw Paris Paris nga jógee. oui ci port la moom Kennedy la Kennedy. moo ko loole mais nee na nee na nee ngay laaj après. école John Fitzgerald Kennedy. Kennedy école Kennedy. Fitzgerald on m'a euh, ah, na ah dafa acteur et figurant loolu la wax. sa waay nag yow yow lay wax ay gaaf gi mi si ñuy wax ci dëgg la de yow war na yàlla ku ànd ak yow du avancé